Quel le sens du rassemblement que la Dahiratoul Mouhtafina est de provoquer daje boo gis am na sabab sababu daje bi dañu bëggoon ndaw yoo xamante ni dañuy àndandoo fas yéene yéene bu sell jëm ci ziyaar jëm ci jokko jëm ci feddali wëllëre ak mbokk bokkoo gi nga xamante ni moo dox suñu diggante ak xadara bii nga xamante ni fii lanu ñu askanale sunu bokk ci je pense que loolu mooy ba ci njëkk. waaye daje rek daje kese kese mu jàll dem defe naa taxul woon ñuy daje dañu bëggoon ci daje bi bu amee dana nu permettre nu gisee ndax dafa am benn woote boo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko woote woon wax ca itam benn wax. ni yaa ma'shara ash-shabaab xudu min anfusikum wa antum shabaab wallahi ma ra'aytu al-amala illa fi shabaab nee na yéen ndaw yi nga xamante ni yéenay ndaw yi diine maa ngi leen di woo dafa woote woote boo xamante ni ndaw yi diine yëpp la ko woo mais def ca feeñalit nawel nawel goo xamante ni mooy gis naa ni jëf bu fekkee ni je ne d'action qui puisse servir à une communauté si ce n'est faite par des jeunes gisuma jëf wuy dimbali lu dul su fekkee ne ay ndaw ñoo ko yëkkati ñun dañu bëggoon suñu dajee mu nekk une occasion de conscientisation jëm ci li nga xamante ni moom la ñuy dund ci ay fitna ci àdduna bi ci dund en général ci li gën a yaatu jëm ci nan lañuy ñuy mën a fexee ba moytandiku asso ak euh, euh, sumb yi nga xamante ni ay sumb yu bon la te du ñàkk mu mën a gaar dogale ndaw loo xamante ni yaa ngi doxal fexe itam ñoom ñooñu di ay ndaw nu ñu leen mën a dimbalee parce que dañu nekk ci jamono boo xamante ni ku am sag ndaw te fekk fegaloo ko jàppalewuloo ko toppatoowuloo ko dégluwuloo ko mayuloo ko déglu ci li nga xamante ni mooy mébétam jëm ci dundam jëm ci li koy dikkal ci ay yëg-yëg yëg yoo xam yii mën na ko firi yii mën na ko bañ a firi ndaw yooyu ku leen am te doo leen fekfegal boo moytul léegi nga ñàkk leen wala nga gis musiba mu rëy mu dugg ca ñoom donc un tel rassemblement le faire dans un contexte tel que ce contexte que nous sommes en train de vivre est une bonne occasion de mieux les conscientiser par rapport à ces par rapport Euh, ces phénomènes de société qui viennent ñëw di nu dikkal ci jamono boo xamante ni xam nañ ni ah jamono jamono bu doy waar la jamonoy perte valeur la waaye surtout jamono la boo xamante ni ndaw ci boppam dafa jaadu nga teg ko ci ay teguwaay yu koy mën a may mu yëkkatiku ba fow bañatee wàcc je pense que loolu bokk na ci sensu rassemblement bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a def dëgg la du ñàkk xëy na nun duñu ñoo koy def waaye une voix bokk plus autorisée di autorité biñ ñu booleel ak rakkam yi topp ci gannaawam xëy na ñoom le phénomène ak tiitange yi nga ciy wane jëm ci wàllu euh, organisation de l'état islamique am nañ ca ñoom ay cëslaay yoo xamante ni ak dégg-dégg ak xam-xam boo xamante ni moo gën a méngoo ñu jëlee ko ci ñoom yaakaar nañ ni mooy gën a doon njariñ ci ñu jëlee ko ci keneen loolu moo tax kon rassemblement bu mel noonu dana baax ci ndaw yi mën ca profité jël les provisions nécessaires yi ñuy soxlawoo ci seen yoon pour ëllëg lu ñu mën a taseel ci lu mel noonu ñu mën ko moytandiku wala mën a am fayday bañ ko parce que euh, ndaw bu xasee xam-xàmme am na loo xam buñ ko ko indilee ci yoonam te xamu ko dana ko mën a dumóoyu wala mu am mbañ ga bañ ko pour xam ni lii du njariñam luy njariñam rek mu wutali lool yaakaar naa ni boobu kon benn la ci ñaareelu laaj bi ko ko laaj defe naa mooy sàmb mbay sàmb moo laaj laaj boobu innovation ban lañu jël ren ci ziar bi ndax at mu jot ñu ngi koy def bilan bi nga xamante ni moom lañu ñu natt ci li passé nan lañuy ñuy fexe ak li ñu dund ci jamono bi nga xamante ni ah xëy na dégg nañu ci kàddu yi boroom réew mu wax ni sénégalais yi dañoo bëgg lu ñuy feetu dañoo bari lu ñuy yàq dañoo bëgg puukare dañoo bëgg yooyu defe naa ay mbir la yu dajaloo yoo xamante ni xëy na nun lañu cay wax rek mooy en tout cas daje bii nga xamante ni nun moom la ñuy def day nammuñu ci jéemuñ ci it fexewuñu it benn yoon mu nekk dajëb puukaréew wala dajëb yàq wala dajëb fo démb rek maa ngi am ñu ma koy waxal fekk ñuy seetaan ci télévision yi ba gis ay mania ah, foog naa ni su fekkee ni am na lu ñu war a wax ci lu jëm ci waar woowu yaakaar naa ni li xew démb ci télévision ci ñu wane ko yaakaar naa ni moo gën a méngoo ci ñu melal ci ni ah, lii day moom bokkul ci liy avancer réew parce que dafay tardeel am réew dëgg la nag réewum ku lu neex waaye def la am na loo dul sañ am na lu jaaduwul nga di ko def kenn ku nekk it laayante biir rek la ñuy mën a defante waaye yaakaar naa contexte bi nga xamante ni moom la dund ñu woote ci woote bu mel noonu mu wóor na ni woote bi da nga ko seetlu ba jeexal doo ca gisub yàq doo ci gis kuy saaga doo ci gis kuy xasti doo ci gis ku reew doo ci gis kuy màndi doo ci gis ku jubadi amaana njabootu yàlla dana fi ñëw te njabootu yàlla mooy ki nga xamante ni day dawal loxoom ci poosu jàmbur kooka nun dañuy jàpp ni njabootu yàlla la bokkul woon ci ñañ woo waaye bu ñëwee dégg woote bi ñëw ci it dañuy considéré ni njabootu yàlla la waaye daanu soññ ñi ñu am ni leen téye leen seeni poos ndax am na boroom loxo yuy doxantu waaye yaakaar naa ni ku natt yawmul ashura ba mu jeex doore ko ci ñi nga xamante ni ils sont investis de l'organisation de cette de ce rassemblement jëm ci ñi nga xam ñooy jóge dans les régions capitales religieuses yi nga xamante ni ñooy ñëw di sofal si Tivaouane ak sax les sections étrangères yi nekk diggante New York Canada euh, France Espagne Italie nga xamante ne ay section étrangère lañ foog naa ba ci Mauritanie ak Gambie ak sax Guinée su fekkee ni am nañu fu ñu mën a jaar waaye yaakaar naa ni contexte bi am it contexte bu xaw a doy waar ndax feebaru Ebola du ñu maye ku dëkk Guinée di ñëw daan na am ñuy jóge Guinée di ñëw di fekkee si yawmul ashura fii ci Tivaouane waaye ñoom ñooñu ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla dindi la fa nekk muy feebaru yàlla may leen wér waaye itam dindi ko ci bépp askanu Afrique yàlla dañal ko ci senegal dañal ko ci fune Mali ak fépp fu mu am diggante Sierra Leone ak faneen yàlla na yàlla musal njabootu Afrique ci feebar boobu ak loraange gi muy indi ak njabootu àdduna bi yëpp loolu kon mën nañoo wax ni innovation bi nga xamante ni ren wax naa léegi ni tombe na ak ñu initier la création d'une mutuelle de santé ku ne xam na ni la politique de santé du ministère de la santé ñu ngi ko teg ci fexe nu ñu organiser saytu xamle lan mooy njëriñu li ñuy tuddee assurance maladie am na ñu mën mën a faj seen bopp am na ñu am mën a faj seen bopp am na ñoo xam te ni dañuy feebar te du ñu am lu leen faj. nan la ñuy fexe ba ñooñu ndimbal gu war a tàllalu ci ñoom pour mu mën leen a faj et cette mutuelle de santé aujourd'hui les différents entretiens qu'on a eu avec le ministre de la santé ou les responsables et techniciens du ministère de la santé ñoom ñëpp dañu ko rafetlu parce que contexte bi mu ñëwee contexte bu mu ko laaj la te mooy un foyer religieux dans ce pays initie une mutuelle de santé loolu mën na noo wax ni kon benn la ci beneen biit mooy cette daïra c'est toujours inscrit ci yoonu tàllal li ñuy technologie de l'information et de la communication jëm ci ndaw yi la première école créée à Tivaouane pour di dimbali ay ndaw di leen may une formation gratuite ci outil yu informatique ak technologie de l'information et de la communication Dahiratoul Moukhtafiina moo ko njëkk am je fais partie de ce mu war a sax su ma sañee mën a wax ni bokk naa ci ñi ñi njëkk indi ADSL Tivaouane maa ko njëkk a implanté ngir wut ay nit di leen laaj di laaj ba gisanteeg directeur Sonatel ni ko indil nu Tivaouane lii parce que dañ ko fa soxla par rapport ak centre bi nga xamante ni Dahiratoul Moukhtafiina moo ko créé di ko may njabootu Tiwaawan ak ku bëgg ku ñëw te am yaatu ñëw fekke cours yooyu ñu may la ko gratuitement loolu ñu am ci waxtaan wu ñu waxtaan ba war fi taxawal centre aéré yooyu nga xamante ni dafay jëm ci tàllal uti boobu jëm ci population wu Tiwaawan tey fii Muqtafina jël na am nañu itam euh, outil yi ba aménagé nañu cinq salles ci biir siège bi nga xamante ni mooy siège u daayiraam pour fas yéene fa tàllal loolu ak yeneeni formation yoo xam dana jëm dimbali njabooti ndaw yi nga xamante ni ñoo bëgg a moo xam c'est des menuisiers hommes de métier bu mu mën a doon ñu te léegi ku ne xam technologie dafa laxasu ci métier yëpp tu peux être un te outil yi ngay jëriñoo doo ko mën a jum doo ko mën a jëfandikoo ñu fexe ba jàngal la ko ba nga xam ne outil yooyu bu ñëwee nga mën ko jëfandikoo bokk na ci benn ci objectifu centre boobu Tivaouane le collecte d'ordures ménagères Dahiratoul Mouhtafina moo ko yor depuis cinq ans di ko doxal gratuitement ci population wu Tivaouane lu dul xanaa il y a de cela deux mois qu'un programme a débuté avec le ministère de la décentralisation et ce programme a exigé que nous relâchions ce programme bàyyi ko pour bàyyi leen ñoom ñu mais élément yi ko doon def nga xamante ni ay membres Dahiratoul Muqtafina tey tout ce qui a trait à ce programme de collecte élément yooyu ñoo koy ñëw di ko continuer lenn rek moom moo am dañ leen a bàyyee ak le ministère de la décentralisation ak nag promoteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ñaan ba ñu jox leen ci eh, programme boobu kenn ki ñu ci amoon comme collaborateur mooy Diop Sy aujourd'hui c'est lui-même qui a la région de Thiès Tivaouane bokk ci biir région ba mu nekk une journée de fraternité une journée de solidarité une journée de recueillement ci lépp loo xamante ni base ba spiritualité moo ko lal ndax mbooloo mi dafa mës a tegu ci loolu rawatina tariqa bi nga xamante ni moo ko tënk mu di tariqa Abul Abbas na Cheikh nga xamante ni sa base réelle est toute de spiritualité kon mën na noo wax ni soxna si bu fekkee ni amul leneen lu ñu ci yokk looloo fi ñëwoon ci ay questions yu rot on a voulu que cette journée soit vraiment une journée de partage partage de sentiments sentiments spirituels sentiments religieux sentiment religieux sentiment de fraternité ñu àndandoo ca ak nag dundal sunu taalibe melal notre talibité si je peux me permettre ce mot notre talibité en faveur de cet hadara spirituelle dont l'ancêtre El Hadj Malick Sy a sur pied pour que toujours ce cette famille soit lié à ces valeurs que l'islam recommande, mais surtout cette ouverture qu'elle devra être, qu'elle devra avoir par rapport au monde avec ce que ce monde propose comme phénomène. Donc, ñu ngi ñaan bis boobu yàlla na ko yàlla def mu nekk bisu ndam waaye ndam pour Sénégal ndax njabootu Sénégal ñoo koy melal nekk bisu ndam ndam pour diine ndax ñi koy doxal diine leen yëkk yëkkati ndam pour tariqa bi nga xamante ni ah yaakaar naa ni ndawi tariqa bi dajaloo rek loolu doy na ndam les groupe ñu dajaloo ci sensu famille sensu fraternité sensu jóg pour fas yéene tegaat sa bopp ci teguwaay yi nga xamante ni moom lañu la teg te sa kilifa teg la ca rawatina mën na noo wax ni nous sommes une jeunesse d'avant-garde pour cette communauté su fekkee ni dañu nekk di njaboot te njaboot liy sagam mooy sagu kilifaam te sa sagu kilifa mooy taxaw taxawee ko ba moom ci boppam dana xam ni doonte la Eh, ku ne am nga njaboot waaye moom it am na njaboot yu mu mën a sagoo yaakaar naa ni kooku mooy def suñu fierté noonu en tant que taalibi yàlla nañu yàlla def taalibi yàlla bu nu yëg suñu bopp benn yoon ci biir suñu joxal suñu taalibe ci yoon wi nu ñu ci teg yàlla bu ñu ci yëg suñu bopp ah sant itam ministère de la culture et de la communication ci jëmmi eh, monsieur Mbagnick Ndiaye mu joyal itte lool pour may nu ah bis bi nu mën koo def defe ko nii nu ko defee. laata la kat la ñu ngi ñaan ñu bàyyi ko xel kon euh, ñu fekkee si ko waaw ci suba gi lay doon du ngoon gi bu ko defee nag euh, heure bi euh, bu 9h30 jotee incha allah fas nañ yéene nekk ci place bi. ko defee convoi bi bëgg nañ mu départ onze heures waaye mu ngi aju ci responsable yi ngeen taxaw bu baax kon ñu ngi sant ñëpp sant press bi xam naa dañ leen di invité mais at mu jot ngeen ñëw waaye rek ñu waxaat leen ne invité nañu leen ngeen ñëw comme ni ngeen ñëwee fii di leen gërëm nag at mu jot li ngeen ko gën a man ñu nit ngeen dañu fi fekk kàddu yi xanaa ñu ñaan ngeen tàllal loxo yi sëriñ bi def ñaan léegi ne dañoo bëgg nga dogu balaa déwén ñu ànd ak seeni alaaji waaw ah, waaw léegi nag loolu ni ñi ci amul jabarit ah ci journaliste yi ñu ñaanal ñu am benn ragal ak ñaareel ñu am fit waaw ñu am ñaar ñemee ñetteel waaw Cheikh Fall itam ah, mu ñemee rek Cheikh daal ñemeel yow nag waaw ku ñuy puus da ngay nangoo tàkk yow itam sëñ bi ñu jàng fàtte salaatu fàtte dugal ci soxla yëpp yal na ko yàlla faj ci barke borom saal bi muy sëñ Abdoul Aziz ak barke baat bi ko kër gi jox ak barke doyloo gi ko bàyyam doyloo ak famille bi secret boobu yàlla na ci yàlla dëgg bala ngeen dikk déwén na aaju yëpp faju ci bismillah